xeetu méthode la ci mbaax fi ne ak mbaax moo yëngu fenn saa su ne man ngaa gis ak mbaax bu taaru loolu am na mbaax bu mu gën a taal pour te loolu ba kàddu ko moo tax nii ngeen demee ba tàmbalee xalaat xalaat yii xalaat yu jot yii. li ci gën a yéeme xottu bi rek wala na ko ñu sëriñ Moustapha bu ngeen defoon ci kaw bi sëriñ Abdou Karim kenn du leen ko wekkee. ngi sa ginnaaw waaye xel dana ah ñu gën dëggee sëriñ Sénégal gërëm sëriñ ñu ko bàyyi xel day nee mu jum ngeen bàyyi xel sëriñ Moustapha bi dëkk ko gis makaare bu Moustapha bi feeñ li nga li nga junj léegi ci ci laay daaneele sëriñ Moustapha dafa xëy korite gii nga ca topp ñetteelu korite mooy rek imaam ngi ko ñëw tàgg ko ndax ndigal li ñëpp jotoon waaye dañu ñëw tàggu si ko ne maa ngi jiite ci barab sàngam kii na maa ngi jiite ci barab sàngam dafay digal ñi waaye kenn ku ci nekk da boo demee da nga ba tàgg sëriñ Moustapha mu sëriñ bi nga toog te Masaalikul Jinaan ñëpp di ma wax ma waxtaane makkaare ren jii moom sëriñ Mountakha waxtaan ak boo xam ci ci te Maguette Moussa kan la ñu tudd ko tudd. sëñ Abdou Karim ñu dem ba ñu dem ba ñu dem xalaat puus puus yi mu xalaat da ngeen wuyu si ko ci wuyu si bu rafet nga xam ne nangootu jàddoon dara moom li ko ñor rek mooy mission bi da jàpp kon loolu yéen a ko kon daal sëñ Diop. ne leen nit ñi bàyyiwaat xel bu baax ndax seen i jëf ak sëriñ bi saa ni ko sëriñ bi léeralul kenn ko mën a xam ndax dafa tasawufe ni ngeen di ànd ak sëriñ dafa tasawufe set da ngeen di ànd ak sëriñ bi ànd lu rafet te loolu am ak lu war cee bàyyi xel waaye nag li jiitu ci nag sëriñ bi foog ba defar lu mu set delloo leen ko moo leen may li ngeen nekk ndax jàng ngeen ay arab mu fekk leen ba ngeen di jàngi woo leen ci sëriñ Tuubaa ngeen wusu ko mu def ci yéen loo xam ne école bu mu may ngeen boole ko ngeen jàng ci école bi boole ndax bi li baax la lépp booy ko boole gi seen kër joxe day daal di méngoo ngeen man cee dimbali jamono dimbali nag seen ànd bi yàlla yàgg ngeen yàgg ak sëriñ jërëjëf beneen am na solo di la bëgg itam sëñ doogu sëñ nel di leen nuyu di leen bëgg itam di leen ñaanal itam sëñ bi nee na nee na doon wax ne màggalu ren bu daan am ci màggal yële benn màggal bii moom liñ ci am ndax màggal yi weesu yëpp dañ koo màggal Touba ci ndigal ci ndigal lu war a jëfandikoo kon màggal yooyee jëfandikoo ak bëggam ak ndigalam ak lañ ciy jël nga xam ne saa buñ ko màggalee rek ci ndigalul Sëriñ Tuubaa ak bëgg-bëggam lañ cay daal di jëlee lañ ci a jëlee yàlla dañu ko li ngeen wax ci kii sëriñ Muntaxa ci sëriñ Muntaxa feeñ na ci feeñ ci màggal gu ren ndax bu ko mu ne màggal gi gannaaw jamono dafa mel nii dañ ko bàyyi ba déwén bu ko neexoon wax loolu am na ne am na kattanam am na baatam waaye day dafa seet di jaatu rek wax ko te am na wopp yu am yoo xam ne mbooloo mu bari day bañ liñ ci wax yëpp lay dégge ci li wopp ci li bañ loolu lépp mën naa ci màggal waaye loolu lépp mënoon naa daje ci màggal waaye waaye dafa mel ni kon nit ñi loolu mënoon naa daje ci màggal loolu mooy jaral na ma lu ci a xew lu ci a xew jaral na nee na màggal wala ji rek noonu yeneen nit ñi màggal seen lu ci mënoon a xew xew rek jaral na léegi nag loolu jaral na ma jooju day am jur ko moo ci gën kon kon ndigalul sëriñ bi def nga ko muy cër koo xam ni yaa ko moom jaral na may ci jiit yi nga ci def cëru boppam la muy ñaari cër ma ne màggalu leen ko màggal am nga ñaari cër màggalu leen gi màggal def nga ndigalul sëriñ bi wala ci lu ci mënoon di xewee jaral na man daal dana nga xam ne jàmm rek a ci xew nga am jàmm ba noppi te jëm day gaa ñu nag seen téere yi mooy yàqale lu baax rek yàqale lu baax mooy fekk mbir moo xam ne am na foofu dafa demee mu baax nga fexe ba yóbbu loolu mooy yàqali lu baax fi mu ne am na ñoo xam ne ñii bitti réew buñ gisee téere bi danañ ko jàng ni ñu koy jàng mooy danañ seet ba xam lu mu doon seet tàmbali guñ buñ ko mën tuuti dañ koy bëgg a yeggale te buñ ko jàngee ba mu jeex danañ ci gis loo xam ne seen njariñ lay doon buñ ko defee te boobaa ko defee loolu mooy yàkkali lu baax gaa ñi ko bind nag yàgg na ma ak ñoom seen bopp rek lañ bind lii bu mënewul ci yow mënoo ko bind kon ñii yàgg na ma jaxasoo ñoom li ma wax ne seen bopp la ñu bind ci xam ko ci xam leen ci laa ko teg bi mu ne gis ngeen mboolem paas bu ngeen gis fii ci kër gi ba ci buntu kër gi yooyu yëpp ñoom ñii ñoo ko def seen xarit seer lool nga xam ne at mu ne ah màggal yi sori naan ah màggal gi nag ñoom gaañu moo ah li ñu defoon daaw nañ ko man dama xel xalaat loolu te li koy def mooy xat-xatuwaayu jamono li jamono jafe ak li ñuy def ni mu seer loolu rek ci lay sukkandiku bay xalaat nañ ko defewoon waaye bu agsee ñu def def na waaye da gis ci moom ak njagas waaye ñoom saa defee ba noppi def gi day set seen bopp ñu di ko wane ci seen bopp liñ def set gi mu set seen dañ koy wane ci seen bopp ak lépp loo xam ne ci liggéeyu makaarimul axlaaq la bokk buñ ca yegee dañ koy def ni ko makaarimul axlaaq bëggee ba noppi nag gën moo tax ma ne leen ñii ci ñoom rek te xam naa ne seen bind bii man eh. si jógee dana wane ak yokk bu baax ci liggéey bi